internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ni rek dal leen ak jàmm fii seen chaîne youtube seen acti tv tey nag di ajuma yamook juróom-ñeenti fan ci weeru septembre atum 2022 dañuy ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi xibaar yi nag ndiki tey dinañ ko door ak génn àdduna kii jëpp ren bu Angleterre ñu gën koo xam ci Elizabeth II xibaar yi fësal na nag bi lépp ren bu Angleterre ñàkk na bakkanam niki alxamis bi ñuy génn dañuy jëm ci ki nga xam ne moo di activiste bu mag bi ñu gën koo xam ci Karim Xurum Xaak gannaaw ba mu ardoo ci génn àdduna imam Aliou Badara Ndaw moom mi di Karim Gueye nag division investigation criminelle fekk na ko ca këram jël ko yóbbu ko foofee ca nungu siin fas yéene ko déglu ci kàddu yooyu mu yëkkati woon talaata bi ñu génn ba tey dañuy des ci làngum politique ginnaaw ba nga xam ne kii di Cheikh Oumar Diagne taxawee temm ngir amal ab mouvement politique bu islamique fii ci réew bu Sénégal moom nag nee na terrorisme taxu leen a jóg mais ay réformiste lañu te bëgg nañu régliser lii di langue politique bu Sénégal ba tey ci langue politique la ñuy nekk la ñuy daal di descendi dem ca gouvernement bu Sénégal ñu ànd ci ak nakar ak tiis ginnaaw ba magistrat bi di basiru Ndiaye mu réeroon ci géej gi nag diir ci ab diir moom nag la ab néewam téere foofe ca Podor ba tey ci langum politique ki nga xam ne moo di Malick Gakou sàkku nag dib leader bu grand parti def na ab sortie gannaaw mën na mi ñu nemmeeku ci Sénégal fan yi nii ñu génn moom nag mi ngi xamal ni rek lajj bi gouvernement bi lajj ci mbi lépp wàllub mën moom nag di Malick Gakou moom nag di Malick Gakou di président bu grand parti nag mi ngi xamal ni rek gouvernement bi deful lu ko war dimbali ko ci bi lépp ak akare ak tiis foofee ci Kër Massar gannaaw ba ñaari mag ak rakk taxawee temm ngir dimbali dimbali askan wa ci mi lépp ndoxu taw bu fa taa ñoom nag dañoo bëggoon rek jàppale euh, ba ndox mi taa fa daal fay jógee ñu daal di tegoon seen pomp nag di pompe mi lépp ndox nag naka noonu la leen courant massé ba ñaari mag ak rak yooyee jaaree fa ñàkk seen bakkal kawteef nag foofee ci Ziguinchor ginnaaw ba ab dawalkatu Jakarta àggee ci kaw jarbaatam sàkku ko nag ba mu jaaree fa jële fa ab ëmb kile nag di jarbaatam ab mineur la mu ngi tollook ci fukki at ak ñett koo xam nag ci dikk nag ñii nag di waa dikk teg nañ loxo ñenn ci ay njegendaale ki nga xam ni moo di artiste bu mag bi di Wally Ballago Seck ginnaaw nag ñoom ñooñee ba ñu jàppee ki nga xam ni moo di Liw Ndiaye jàpp ko daal di koy néewal doole daal di koy filmer dugal ko ci li nga xam ni moo di réseaux sociaux yi daanaka sax vidéo bi dañ dafa daal di dem fi nga xam ni moo di viral ñoom nag li ñu doon dóoree ki nga xam ni moo di Liw Ndiaye nekkul nga xam ni moo di Matar Diop Subatel moo ko daal di yónni ngir rek mu amal lu mu def ci ki nga xam ni moo di artiste bu mag bilee xibaar yi nag dinañ ko ndar képpee ak ki nga xam ni moo di Naboudash Naboudash nag ñenn ci Sénégalais yi jàpp ni dafa ñàkk li nga xam ni moo di xelam ba tax na sax nag ki leen di jëkkëram jotoon na ko yóbbu fi nga xam ni fa la ñuy fajee ñi nga xam ni daal seen xel yi daal matul moom nag di Naboudash nag taxaw na démb ci réseaux sociaux yi mu daal di amal moom nag nee na comme que jëkkëram ñëwul dem na defe ji li nga xam ni moo di njaaloo te nag comme que nëbb ko yàlla du ko nëbb ñi nga xam ne ñoo di ay fulaawam texnatu seen ak ci TV tey nag fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi dig daje ëllëg waaye laataa loolu way leen di abonné te bu leen fàtte bés li nga xam ni moo di cloche de notification yi pour di mën a jot suñu ay vidéo à temps réel à la prochaine ci yeneen rubrique fii seen chaîne YouTube seen ak ci TV